en forme sant yàlla bu baax donc on est content tout va bien on a une très belle journée à Bignona ñëpp kontaan nañu vraiment waa Bignona kontaan nañ Casamance ñëpp kontaan jeunesse bi ñëpp a ñaan ñaani yàlla ko yàlla nangu le président est là super en forme on est content on est vraiment content émotion bi la donc vraiment il était. il était vraiment touché par émotion boobu yëpp toute la journée xam nga témoignage yeeg yooyu yëpp donc vraiment émotion bi moo bëri woon quoi mais il va super bien ni ngeen ko gisee le président va super bien ah waaw Dakar. maa yé maa jóg na man dinañ yéen man dinañ soxla suñu kër. mais bon tout va bien. donc c'était en direct vraiment. non mais non non mais amul amul. mais ça va maanaam xam naa ne c'est l'émotion. li mu dajale ci émotion dafa bari. nit kese la. voilà. comme ñun ñii kii sax indirectement on est ému. voilà. affaire dafa diis aussi. man bu ma xoolee xale je te jure j'avais mal mënu ma woon sax wax j'avais mal parce que danga naan lu ko fi jar quoi. non man bi ma yëgee bâche bi daf ma assumé. bâche bi ak xale yi. je pense que président bi day def benn live pour gën leen a rassurer donc euh, j'essaye ma j'essaye ma tenir leen affaire yi en en live en direct. waaw nii si discours bi ah, garaaw na ah. mais léegi xam nga il faut ñu lay woon nit mi léegi léegi léegi il ñu lay wax nit ma mais dof da nga war a bañ mhm. ñuy dooleel incha allah ñu nekk suñuy kilifa waaw gën ñoo engagé da ñuy gën a leen. mais bu neexee yàlla loolu ko ñu incha allah rabi macha allah. bëggee. Abass. jaajëf adaayi kaay toog honorable ñëw leen partagé leen vidéo yi partagé leen ko xool photo xale yi xool photo gërëm ñëpp nag seen ngeen nekkee teew ci mbir mi waaye daal seen kàddu ñu ngi si jàmm bu baax a baax émotion bu bëri bu bëri bu jaar li muy jot a jaar bu bëri la rek ñu nekk mu ngi dem sama papa ñeeku ñu nekk organisé lu toll kilifa yi nga xam ne discours yi témoignage yi ñaar am bëri fu ñu yóbbu. partagé leen vidéo bi. amiin. amiin. donc la famille. ni ngeen ko gisee. kaldu la kaldu wala ceeb xam nga añ bi bu ànd ak bëgg michu <laughs> bu ànd ak bëgg la ñuy añee tey famille yooyu utilisé donc nekk leen quoi nekk leen ñun ñoo ngi nekk tout bien donc alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax portez-vous bien donc c'était juste benn live bu ndaw bu gat pour rassurer leen donc euh, alhamdulilah à plus tard la la famille jaa ngeen jëf